yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom te mooy aji dund ji tey aji des di astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ku fàtte ak julli wala mu nelaw ba julliwul ak kafaaraam mooy saa yu ko fàttalikoo mu julli ko xadis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu wa sallam man nasiya salaatan aw naama anha fa kaffaratuha an yusalliha an yusalliha ida dakaraha rawahu Buxaari waxtu julli suba waxtu gantaar bi 6 heures 15 juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom tisbaar 13 heures 48 benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñett takkusaan 16 heures 48 ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñett timis 19h14 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñeent gee 20h25 juróom-ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom ñaari kilomètres yu ne wàññil benn juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett di so 19 juróom-ñaari waxtu yi tegal fukki simili yàlla na nu yàlla nangul leen amin